jëwriñ bu yees eh, bi ñu dénk wàllum biir réew mi Mouhamed Matar Cissé amal na niki tey ab visit de travail. kon appelle la la police de de proximité bu ma nommé ministre de l'intérieur rek léegi yàggul maa ngi jël service eh, altine bi passé donc tey la semaine génn bu ma njëkk bi def nu nekk ci contexte électoral bi nga xam ne ñu ngi ci ñaan jàmm. ak euh, dal mais aussi di ko dox di ko wax di ko liggéey pour mu am te loolu lu koy indi mooy ku nekk doxal yoon. ci loolu mu dem ci ñetti bërëb yu wuute. yi nekk ci biir ville bi ak banlieue bi. journaliste yi d'abord ñu accompagner suba ba léegi ci tourne bi mu jógee commissariat central bu Dakar jaar euh, camp Abdou Diassé fekk seet waa GMI ak waa <coughs> brigade d'intervention polyvalente waa nu te d'élite de la police comme on l'appelle souvent. nu mujjee ko fii ci mbaaw Mbao visité commissariat bi fi nekk nii nga xam ne day lu muy màndargal jëmmal ko mooy que ni police dafa war gën di jóge askan bi. moom nag Mouhamed Matar Cissé mi wutu Sidiki Kaba mu ngi jaajëfal takk der yi ci liggéey ku am solo bi ñuy amal. ndax lu ñuy def li amul fay donc lu nu mën a def rek mooy fexe ba lu leen gën a lu leen gën a protéger lu gën dalal seen xel pour nu gën a mën def liggéey bu metti bu ñuy bu ñuy def. comme ni ngeen ko xamee ñoom nelawu nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg du ñu yendal du fanaanal comme on dit ñu ngi tout le temps 24 sur 24 ñu ngi liggéey délinquance bi défi la immigration bi défi la yu bëri na. ci fàttali ci mbégte rek ak ambiance la ñu amal bile visite ak itamit mobilisation bu takku bi nga xamante ni takk der yi def nañ ko moom nag Mouhamed Matar moo ngi xamle ni rek ñoom dinañ def seen ay kàttan ba rek saafara manquement yi am ci biir police bi donte sax nguur gi def na ci ay effort yu bëri.